premier coup bi mu njëkk a joxe trésorier mu ngi jàkkaarloog man premier coup bi mu njëkk a joxe cent cinquante mille boobu mairie bi boobu yoragul mairie bi ñu del beneen bi joxe na cent mille muy deux def ko ci poste bi mu def ko ci poste bi te mairie mais laajal kii bi mu yoree mairie de bi benn cinquante mille la fi dugal mooy kere bi ñuy jëndi garab yi. kon daal li ñuy njëkk naan le maire moo nekk ci ginnaaw mooy xaalis bi. <laughs> waaw kon ni ñu de. Ah, moom même jigéen moom notification infirmier bi borom dëkk koo njëkk yëg ba moom sax xawoon na parce que aussi kilifa boo ko déggee. information bi ñu leen jotee ko ñu ne sax xawoon na ko métti sax man mu ci maa ko oo ci téléphone na ko jarut dugg.

ñun dañoo bi liggéey ba pare dañoo jóg jël délégation chef de village man mi yoroon comité de pilotage bi Malick Touré Kër Jànko Mbaye kebe Samba Cissé ak Mamour Cissé mii boobu mu ngi kabaa mais on a ko ak Modou Maram Modou mi nga xam ne yéen a bokk nekk di réew mi mu nekk koo xam ne nag liggéey bi ku ci saf sàpp la mm-hmm. moo tax xëy da ngeen di si ba ngoon jot maa moom dañ fi toog ba jàng ñu jeexal xaalis mën na ko làmbal ñi ko yab ma làmb ñi ma yab dañu toog ba jàng ma naan ko Modou yow sama waa koñ ñoom man sa koñ mason yaa ngi taxaw nga war a génnee xaalis dañ doon def sa fi nit ñi maçon doon nañ ko xëylu sax mu war a wàcc sax dañu toog fii di oote téléphone ku ñu yab rek woo la rek nga dugal rek pour ñu mën a fay maçon wala dañuy xëy dem jënd ciment ku ñu yab pour nga dem jënd ciment ci lañ def délégation boobu dem ba ci moom ne ko nag ba ci monsieur le maire fekk bureau keroog jour boobu la doon gàmmu sëñ Ablaye Ndiaye doomu ab doomu Jim Ndiaye bi mm. ñu fekk ko bureau am na ko nag dañ fay ñëw en tant que doomi commune bi mm-hmm. la ñu doon liggéey mm-hmm. pare na sotti na mm-hmm. appui administratif la lañ bëgg mooy infirmier la ñu soxla mënuñu bu ñu bëggee xaar état mu affecté ñu infirmier jox ñu xalaat bu rafet dana yàgg te du ngeen am li ngeen def mooy nañ xool district ña fa déposé kuñ ci am man dana ko jël en charge 6 mois ah, booba mo liggé bi paré na mo ne dina ko jël en charge 6 mois wéru ñëk wi ni nii fay na ko keroog ba wér dé xay xay wér bu ndé sa sax ci benn fan le infirmier bi jël xalisam lolu mom kon après biñu tabaxé la waaw mu taxaw ci itam nak mo ñëw installé ko waaw waaye daal euh, wax yi nit ñi di wax dal ne moo ne ci gannaaw lii ma xamal la Abdou salaam ne maire daal moom ñëpp a ci yam lii daal doomu ci sa Kaymoor doomu dëkk bi ñoom ñoo def seen volonté Mamour Cissé am na lu mu xam muy def démarche am amat ma ne am na ñu minanteet muy def démarche am jéere am na kum xam mu def démarche am préfet Kébé am na kum xam mu def démarche am parce que moom yaakaar naa sax mënu bu bu nekkutoon maire doon na ci def démarche sax parce que yu bëri dinañu doon génnee waaye bu ko defoon rek. am loo xam ne tey fi ne dafay takk ci moom wax naa leen ne balaa muy nekk maire xaalis la ci def premier coup bi mu njëkk a joxe rek cent cinquante mille yaakaar naa booba jamono booy xool ñaar ña ko fa joxoon cent cinquante mille ñaar ñun ñoo ko ci ëppaloon ci coup yu njëkk yi waaw waaye nag bi mu nekkee maire ak léegi aman mi sax kooku la ñu jox <laughs> voilà euh, euh, ko fi jéeri xam ne wala koo di faj que du a ñëw fii yan jërëjëf Abdou Salam loolu leeral ko dafay am solo ndaxte wax ji des fois ni yenn accusation yi à travers maire bari la xam nga nit ki eh, na ko yaa def nangam te defut ko. Mm-hmm. surtout loo xamante ni pour taxal ko. Mm-hmm. dafay métti. Mm-hmm. Eh, yaa fii nag ñi ñi toog nii. ñoom ñoo ma la wax li réellement li am mm. li am mooy li la jiiri wax moo di ne en réalité bi nga xamante ni doon na maire ba kerek ba ñuy uti euh, euh, garab bi mm. cinquante mille la ci dugal te loolu noonu cotisation pour doomu ci sa alors que maire doomu ci sa mm. donc loolu mooy li nga xamante moo am bi nga xamante ñu ngi tabax ba nga xamante ni léegi tey bu pare toujours dafa am loo xamante ni ñun administrativement ñun ci loolu la ñuy nekk. Mm. moo tax moo tax bind mu dem fi nga xamante ni mooy euh, médecin chef de district bu ñooro xamal ko na ko pare nañu wala ñu ngi waaj pare bëgg nañu bi nga xamante ni mooy yi mm. dañ ko bindee mu am décharge.